salaam temps bi xam naa ne daanaka li des bëreetut ndax euh, boobaak léegi nit ñaa ngi toog waaye dama leen bàyyi rek directement ñoom ñu nuyoo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Haaj Mansour ñu ngi lay nuyu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di leen jox seen wàccuwaay waaye di ñaanal waa télé bi yëpp waaye di nuyu itam fa tabarakallahu ñu fi fekk ñu ànd ndoog yow liggéey bi fa tabarakallahu ci suba ba nëga ñu nekk ci liggéey bi rek ñu jur soppe yonent bi bëgg waaye ngir jullitu yàlla yi bëgg ndax ca feetu jullit ñu nekk mhm. fa tabaarakallaahu ñu nuyu leen bu baax ziyaare leen waaye ñaanal leen itam télé bi li nu fi yëkkati ci ay kàddu ak di ko fi yëkkati ci tagg sayiduna muhammad yàlla na ko yàlla def leer sumbatal ko ci Sénégal ak àdduna bi yëpp yàlla mhm. doolu fee def jàmm bi jaayi sayiduna muhammad muhammadul musawa bismillah jërëjëf xaaji Mansour sëñ kàddu ay ci looy nuyoog téléspectateurs yi محمد المعي بدر الكمال وسط سادات الرجال آله وسلم وهو النبي رحمتي النبي معي باب كل نعمتي مصدر كل حكمتي مل مبدأ كل زئم شفيعنا خير الورى من باللواء قد بشرى قد قصه رب الورى خذ مثناه fil muhkami way gaay ñu ñëpp def nii ñu màgg leen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam salli ala abil batul mam abdu neena shafiina xayri rasul wa alihi ذوي القبول وصحبه وسلم وسلم يا إلهي وجزيا أبا أن محمدا المختار في القدم صليا يا إلهي وودع ما يبين عنا محمدا يصب ينن وخجاك محمدا وأن محمدا المختار المختار صليا يا إلهي فيك دفلني أن محمدا ويصبي لو خيتك ولواريخ وشعره الأصفر من عسل موضم جنة الكاف من ما صليا يا إلهي محمدنا للخيط مولو وهريخ وشعر الأصفى ومن عسى مولى الجنة والنبي أمك فوق كرامة وسلم جزيا يا إلهي وجزيا مولانا الله محمدا وصفيا نسيبي لو خيتك زلزلت أسطوانة ملوكك ككعبة ثلاثة أيام هلا خلوني وسليا يا إلهي وجزيا مولانا وإياك ولكنه لم يزل لم يزل لم يزل يرجو من الله عوننا مولاي لكنه لم يزل يكفو مواسمه مولا يرجو من الله صفيا نجيبك يرجو من الله حول ما مولاني يرجو أي يرجو يرجو يرجو من الله مصطفى سما مولاني يرجو lu baay moo gannaay ku nangu ni Mustafa Mustafa moo nu gannaay ak baay Mustafa ñu gannaay ak baay moo ñu gannaay ak baay moo ñu gannaay ak baay baay nabeenu gën daay ak baay moo nu gën daay ak moo nu gën daay ak moo nu gën daay ak baay am na ñu gën daay ak baay ayaa man xamal naa kaxbatal qalbi innani saqiimun wala yaxfaa عليك بلاء يا نبي sallallahu macha fi ko ñun am na solo lool ñu day jaajëfal bu baax a baax di leen masaw si yoon wi ne xam naa ni métti na lool yoon wi moom xat na métti na ñu leen di ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ñëw si Hadj Mansour maa Hadj Mansour loo indi tabarakallahu Cheikh Mahamadul Moustapha delluwaat nuyu mboolem xalif généraux yi rek waaye damay wax ni am na lool bu ko nit defee mu wàcc ña ca def ñépp bu ñu demee ba Tiwaawan nuyu sëriñ Babacar Si Mouhamadul Mansour ñaanal ko itam yàlla guddal fanam allahumma sàmm ko sàmmaale njabootu Seydi Hadji Malick gi yépp dem ba Touba nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir ñaanal njabootu suñu maam Cheikhul Khadim yàlla na yàlla sàmm leen ñoom itam allahumma waaye dem ba kër maam Alxaaji Ahmad Baro Njëgéen nuyu saaxibul xilaafatayni xalifa suñu maam alaaji Mouhamad Ndiéguène xalifa suñu maam alxaaji moo moo am Ahmadou Baro Ndiéguène muy Cheikh Seydi Mouhamadul Munir yaara ko jox ko wàcc waayam waaye ñaanalaale ko ñaanal nañu àdduna bi yëpp dañu yóbbaale géew rek ndax guddi na ba noppi li njëkk Cheikh Mouhamadul Moustapha réew mi fii ñu toll hmm. ñépp jaaxle nañu hmm. yow mi toog di def si émission jaaxle nga gàbbu jóob mi nga xam ni moo ànd ak ñi mu àndal ñu ñëw àndandoog man di def si émission jaaxle nañu ñi nga xam ni ñoo fi jàll itam ba dem jaaxle nañu mboolem techniciens yi sax ak techniciens yi ak mboolem ñi nga xam ni ñooy ensemble bi liggéey ci yow mi di liggéey fii ci 7TV jaaxle nañu. lu ko waral. li waral jaaxle nag. Mm-hmm. mooy bu yàlla dogalee li muy dogal ci jaam yi ñu walbatiku ne dogalum yàlla bu fi doxee ci jaam yàlla ne bu ma rëddee ci Muhammadul Mustapha nga ni du fi amee yàlla ne damay rëddaat beneen rëdd bu gën a leer bi ma rëddoon ci Mustapha nga ni du fi yàlla ne damay rëddaat beneen rëdd rëdd yi yàlla rëddoon ci Mustapha yàlla boole rëdd yooyu yëpp gas ba mu xoot dugal la biir bàmmeel mm-hmm. bi njëkk mooy jàmm fii ñu toll ci réew mi moo ñu ñaan jàmm gis nga tabaski bi. Mhm. Moustapha bu ñu waxantee dëgg tabaski yi weesu ñoo dàq bii ñu dugg. foofu yi weesu daan dox daan neex bii dox na neex na waaye dafa ànd ak calcul. Mhm. mooy ñun ñëpp ñu calculer. Mhm. kenn ku ci ne li nga la te nag faq naa fa fil qanaa raaxa yonent yàlla Muhammad nee saxaaba yi Seydina leen def ñu woon nañu doylu kenn ku ne ci yéen boo doyloo rek am jàmm waaye bi njëkk mooy jàmm yonent bi ne jàmm séddale nañ ko ci ñeenti mbir ba moo ci njëkk mooy arraatu yaqtasimu ila baati l aqsaami raatu l jismi fi qillati taami wa raatu l nafsi fi qillati l ihtimaami wa raatu l qalbi fi qillati l aataami wa raatu l lisaani si xilatil kalaan xoolal wax ci wax ci ñeent la xoolal jàmm jàmm ji ñu bëgg ci réew mi bëgg ko bitim réew bu mu doon ñeenti rek la bu ñu ko defee am jàmm ban ak ban bi njëkk mu safara hmm. spécial tabaski ngeen def hmm. def spécial ndewenal hmm. ndewenal nag bu ñu ko waxee kan moo ko moom mooy kii ñaani ndewenal moo leen téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre fii ma toll ni di wax ak yow 7TV ci mboolem jumtukaay yi ku ci ne ci ñoom rek yaa moom lii may bëgg a ku ko def am jàmm. Mm-hmm. raaxatoo def ne fi xilati taaram yonent bi nii bu ngeen bëggee jàmm seen jàmm yaram njariñ loo fekkee bu ko olof waxee mooy jàmm yaram. Mm-hmm. rasulilah ne. jàmm yaram li koy njëkkee mooy néewal looy lekk xam nga néewal looy lekk Moustapha hmm. du xëy rek ni damay ndékki waaye du ma añ da ngay gis dëkk boo xam ne na ma yàlla baal nañ ma baal itam waaye da ngay gis dëkk boo xam ni day xëy ni damaa wàññi sama régime mooy damay ndékki mais du ma añ wala mu ni damay añ waaye du ma reer wala mu ni damay reer waaye bu ma xëyee du ma ndékki damay naan ndox ak lingom wëlbatiku gën a am poids na mu déparé woon ci régime ba lan moo koy waral mooy yeneen bi ne raatul jismi fi qillati taam yow mii seetaan sa TV bëgg a jariñu lenn daal ngay njëkk a def mooy néewalal sa lekk xam nga luy néewal lekk ah. jullit bu dee def lu mu gis rek ne naa ca mos damay war faral di wax ni sëñ Fallou Mbàkke bu baax bi dañ ko mos a ni ko bàyyi Fallou waa këll lu ci topp mu ni karaj ñu ne ko waa lu tax nga ni karaj mu ni jullit bu lekkee ba suur këll bu tëddee nooyam nooyeem mën naa aju te bu nooyeem ajoo lenn rek lay jur mooy karaj mooy faatu bu faatoo nag ñu jangat-jangatee takk sang ba mu set jangat-jangatee yóbbu biir bàmmeel te jullit buy dem ci yàlla war naa demee neneen lu dul <laughs> kon raatul jismi fi qillati taam néewal looy lekk nag lu new lu ne lu ne nga wax. macha allah yëkkati kàddu ko ne pour lan am ca dara boo ca amee dara yóbbu ci sa njaboot. lor sa njaboot loraale sa bopp mooy bomb bi nga dugal ci biir kër gi taal ko ku fa nekk du mucc bi njëkk mooy raatul jismi fi qillati taam mhm. wa raatul nafsi fi qillati fi qillati ihtimam mooy yonent bi ne bu ngeen ci topp bi ci topp mooy sa jàmmi bakkan fii xillati ihtimaam da ngay néewal yéene yëf jëf yi gis nga bu fekkente ni sa yitte yëpp sa dox yëpp mooy fekkee am na ñoo xam ne mu sabaa ci réew mi ay wu am ñu laaj leen seede ndax mu xew ñu fekke ko mm-hmm. jullit nag boo bëggee sa jàmm yaram li jëkk mooy li nga war a njëkk def yitte lu manti am yonent bi ne woon na man kaana yuminu billahi wal yawmi al fal yaqul xayran aw liyasmut sayiduna muhammad ne Mustafa sa turandoo nee na boo bëggee sa jàmmi àddina sa jàmmi alaxira da ngay wax yiw wala nga noppi mhm. mais bu fekkente ni yow jullit bi sa yitte yëpp boo xëyee li ngay dox mooy luy wër luy gàkkal deru looy wër rek mooy jaam juum nga jël ko exploité ko ba ñëpp jot ci ne bu ëllëgee yow doo am jàmm fii waaye doo am jàmm fa ñu jóg bi ñu topp waraatul fi qillati l-afham waraatul qalbi fi qillati l-afham rasulillahi mooy sa jàmm ñi xol Moustapha gis na nit ñëpp ñu ngi rawantee ci xol yonent bi ne silman qataata wa ahsin ila man asa ilayka rasulillahi ne jokkal ki la dox waaye nag na nga rafetal jëme ci ki ñaawal jëme ci yow réew mi nag ban problème la ñu am hmm. sëriñ Cheikh Tidiane si almaktoum dañ ko musa laaj ne ko nit ñi kat dañuy wax ni daal ku ma wéq ma wéq la mu ne mbaam boo ko wéq bu la wéqee nga wéq ko rek sëriñ Cheikh nee na mbaam yooyu bëri te yàlla soxlawul ay mbaam ay nit la soxla hmm. kon waraatul qalbi fi qillatil awtaar jullit bu dee def lu lu lu dal mu yéene ko ko lu ñaaw lu ne mu yëkkati ko lu bon lu ne mu def ko jullit boobu maa ngi leen di xamal ni xolam du am jàmm te jullit bu jëmmam amul jàmm mooy xolam bu amul jàmm jàmm dëgg la damay faral di wax oto lu mu rafet rafet bu moteur ba doxul oto ba du déplacé wu mhm. doomu Aadama loo rafet rafet bu sa xol bi doxul sa jëmm ji dootul am benn valeur bu ñeenteel bi mooy waraatu lisaani nag fi qillatil kalaam damay dëkkanteeg waxtu wi bu ñeenteel bi yonent bi nee na jàmm jàmm ji ngeen bëgg yéen waa Sénégal jàmm ji ngeen bëgg yéen waa adduna lenn daan ngeen ko mën a amee waraatu lisaani fi qillatil kalaam seen jàmmi lammeñ daal néewal leen seen i wax réew mi yàqu na Moustapha problème bi ñu am yonent bi la yonent bee ñu gën a baax mhm. yàlla gën a xam yonent bi mais yàlla bu xoolee sayyiduna Muhammad ne ko daal yaa ma doy daal ni wa maa aataakum rasulu seen waa ji fa xuduuhu wa maa nahaakum seen waa ji fantahu yàlla nee na rasulillahi lu mu leen indil jàpp leen kii daal lu mu leen tere bàyyi leen ndax lu mu leen tere lori kese la waaye lu mu leen indil njëriñ li kese la sa turandoo ne. ah la xoolee sa jëmm. waraatu lisaani fi qillati l kalaam rasulillahi ne woon na nag maa ngi leen di wax ñett ñett yii ku ngeen ko gis ci moom xam leen ne naafeq la ñu ne rasulillahi kan mooy naafeq dañuy wax ni ngan mooy naafeq yonent bi ne maa ngi leen di wax ñett yii Moustapha boo ko gisee ci man bul ma ragal xamal ne naafeq laa daw ma waaye bul ma muuxu mukk naan nag sama mbokkum jullit la yonent bi ne kum ne teew doo jullit ayatul munafiq thalathatun ida adata kadaba wa ida waada xalafa wa ida tumina xaana rasulillahi ne hmm. naa fekk daal Moustapha bu ñu la koy warloo ci Sénégal. Hmm. nga ñëw fekk ma ma toog lu ma la wax du dëgg. lu ma la wax rek du dëgg. du dëgg xamal ni naa fekk gaye ngi ni toog. <laughs> xoolal Moustapha yonent bi nee na. idaa xadata kadaba am na ñoo xam ne saa bu ñu waxee waaye am na ñoo xam ni saa ñu waxee rek li ñu la wax dëgg la ndax dañuy am principe. Mhm. ku mel ni penda mi ci kër gi. Mhm. dafa am principe moo tax lu mu la wax dëgg la. daa dëggu de. <laughs> waaye daa war a def la fa xoolal li xew léegi damay wax ak yow Moustapha cupp la ci mbir ndax yaakaar la wax naa ni nag nit ñi nanu yeewu xam nga lu tax yeewu. Mhm. mooy réew mi fii ñu toll. boo amee sa benn soxla ba wax ko nit ñi mook attaaya ñooyam attaaya yaag say gaay moo ki gaayam mhm. attaaya damay woo Moustapha ni ko kaay ñu naan attaaya ndax sama gaay la mhm. waaye attaaya buy ba ay gaayam di yegg si moo tax kenn mënu ci si boo musa sekke attaaya ñu di ko séddale mu mat ñëpp musta mhm. kon sa soxla nag boo ko waxee nit ki mu wax ko keneen koo ko wax ko keneen koo ko keneen koo ci waxal mu ni kii rek laa ko waxoon kii laa ko waxoon ba mbir ma daj waaye naa maa daax la fa koo xam saa wala joxee rendez-vous rek fausse ko dama seetaan kenn koo xam ne dañ koy déglu ci réew mi muy wax ne ndaanaan boo bëggee yàgg ci kaw ki seen bi da ngay fexe ba da ngay joxe rendez-vous di ko fausse ma ne ah naa fekk ngoog de yonent bi ne woon na a gis nga bu ma la joxoon rendez-vous tey yaa ngi doon xaar ñëw naa war a du ma ñëw mhm. waaye bu ma ko fóose woon dara wax waxi ndax daa ndax a saxandañ làkki daa daan da ngay xam ne kii daal naa féq la la ma waxoon fóose na ko mhm. way naa tuumi na xaana yonente bi ne koo xam ne nag saa boo ko wooloo mu war la loolu war bëri ci réew mi xam nga luy war mhm. mooy yàlla ne qul illahumma maalikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yàlla ne man maay xool nguur may xool yitte gis ki jox ay yitteem ndax fa kullu man saara ala darbi watal képp koo xam ne yaa ngi dox di nga mus a yegg mhm. waaye yàlla ne yonent bi nee na bu ma xoolee nit ki jox ko lu ma neex waaye man ngeen a wax a wax ba koo ko ñàkk lool ñu ni déedéet rasulilaay ne waaye bu ma xoolee nit ki def ci moom la ma neex waaye mën ngeen a wax a wax wax yàlla ne bu ma xoolee nit ki jox ko li ko neex li mu bëggoon te mu neex ma ma jox ko ko ndax nit mën naa wax a wax ba mu dem ñu ni déedéet mu ne waaye bu ma xoolee nit ki def ci moom li ma neex ndax kenn mën naa wax a wax ba mu naqari ma ba ma koy dindi kon bi ngay jëkkee mm-hmm. way wa tumi na xaana koo xam ni nit ànd ak nit wóolu ko ci réew ànd ak nit bëgg ko ànd ak nit yaakaar ko ànd ak nit fekk moom lu ne nga wëlbati ko kooka ka sa noonu démb sa ba sa mm-hmm. mooy sa noonu tey réew mm-hmm. moo ko waral mm. xam nga ko waral mm. mooy xol ñoo yàqu te yàlla ne illaa man atallaa bi qalbin salim Moustapha yàlla nee na xooloon buñ la xooloon ah soxna si bu la xooloon ba mu yàgg ni la wallaay yaa rafet ngay ñoom dem dem yàgg mun la new dog nag sa sang ba Seydina nga daal a neex na mu ne la même sa doom ji Seydina sax day day duróog sa sang ba Seydina ba mu yàgg mu naan la may yow salaaw est-ce wax nañ la ne yow da ngaa duróog yonent bi xamal ne dalay nax nax na ñu dem ba mu yàgg mu lay xool ba mu yàgg lu ne mu ni la ko wax da ngay xool xam ni kii daal leen rek la bëgg mooy lu ma neex te liy neexal xool moo dundal doomu aadama. wallaay. waaye way da na xaaral boo xamante ni foo ko wooloo mu war la yonent bi nee na e jàpp leen de yéen waa 7 naa fekk la de. Mhm. ñu ne yaa rasulillahi kon nan la ñuy def mooy nag waaye léegi bu leen yàlla lii dalee bërki dem moo njaay amul feebar bu fi ñëwoon dal ñu ñun ñëpp. xam nga dama tax ma ni ñun ñëpp. Hmm. mooy malaate dañ leen tëjoon tëjaale ñu kon ñun ñëpp a feebaroon. confinement. kon wëlbati ku barki dee mooy jaay ba mu leen dalee jékki-jékki ñoom wax remède ne moo koy faj jékki-jékki ñoom wax remède beneen remède ne moo koy faj jékki-jékki waxaat beneen remède ne moo koy faj bi ma ci jàpp mooy chloroquine. ñu ni moo koy faj. ñuy naani chloroquine di jëndi chloroquine men kenn mënta wax ba ñu faju dañoo jekki-jekki jël lépp jox jalla jalaalu wa azza kamaanu yàlla ni man maay chloroquine bi defar chloroquine bi gën ci chloroquine yi hmm. te moom laa leen defar mooy remède bi dellu leen ci man moo gën a gaaw daaj maa di ne hmm. wa xayir wala taxtar fa kay fa xtiyaaruna wa innama xabaati umuri mustafa taxiib wallaay Seydi Hadji Malick ne ah. bul tànn bul bëgg dara tànnal rek yàlla ni ko loo ma tànnal neex na ma ndax loo tànn lu dul yàlla rek bu mujjantal ga da nga koy xeeb léegi nag lenn rek la ñu war a tànn xam nga mooy lan. Hmm. sa turandoo. وقد استثمل اسمه شريفا على أربعة الحروف الهجائية لكل حرف منها ماضية ومقام فميم أولى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحاء حما لمن آمن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فميم أخرى مفتاح الجنة يوم العرض ودال دعوة الشفاء يقال به يوم القيامة سترون may taxaw ni al ismu yutaabiqu al musamma nit ku nekk ki ñu la tuddee da ngay jël ay ay ay jikko ci moom almaru maa man ahabba sa turandoo day taxaw oh. nekk turu rasulillahi nabi day taxaw naan eh wa daalum daawatu shifa woo teg ram ma la nabi day toog ba mu yàgg daan ne bisu tabaski daal ba ci suba ga deuxième jour tabaski Moustapha yaa tàntaloon sama yaa ma tàntaloon sama turandoo nga ne maa la tàntaloon mu ne ku la ca jàppale woon nga ne ko penda de nga woon tee si ba ak keneen kam ca àndandool dama xamul tur bi ñu dem ba mu yàgg paap paap ni maa ngi woon tee de Moustapha ni yéen ñaara tàntal tànt bi ñu dem ba mu yàgg ñu ni directeur wala directrice bi nga xam ni moo jiite fii moo leen joxoon tànt ya ñu dem ba mu yàgg daal ni eh mais ñi ne woon ca tartawa ñan la Moustapha ni maa nga fa woon Pape ni maa nga fa woon Penda ni maa nga fa woon Siré Diallo ni maa nga fa woon Kabou Diop ni maa nga fa woon Baye Laye Samb ni maa nga fa woon ma ne yonent bi maa ca doon wax nag bay ñàkk fu ne ma ci dëkku ndax fu li lay ni gis naa leen ci yàlla Muhammad daawatu sifa ni comme yéen a géré woon loolu ànd loolu leen ak man fan la ñu jëm mu ni ummati sama xeet ñëw leen ummati sama xeet fan la ñu jëm ya rasulallah ah. mu ne ñëw leen ñu dem biir aljanna ma teral leen yéen te yor yonent bi lam yabdu mislal Mustafa Muhammadi Mustafa te góor ga te góor ga te góor ga Cheikhul Khadim ay jooba rasul lam yabdu mislal Mustafa Muhammadi boo xamul ki may wax mooy maami Cheikh Modou Kara wallaay Mustafa Muhammadi boo xamul ki may wax mooy maami Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir yabdu mislal Mustafa muhammadi mooy maami maam Cerno Birahim ndaama ca daaru ndaama ca sukoori ne yabdu misla almustafa muhammadi in tatuuba ila allahi faqad sagat qulubukuma lam yabdu misla almustafa muhammadi góor gi ni woon màggal si leen ku màggal màgg ku feebar ma faj ku dee ma jox rasulillahi bàyyi sëriñ Saaliw ne lam yabdu misla almustafa muhammadi yaakaari Cheikh bi sa coon yàlla yàlla dolli yaram lam yabdu misla almustafa muhammadi yaakaari Cheikh Ibrahima Fall Alaman Fall te yéen Njaay Biram nu mel nga jàngaa góor dëgg bàyyi la la faay la bi abdu misal Mustafa Muhammadi Seexul Xadim nee na bu leen jaaxle tey ma wax leen turandoo Mamadul Mustafa la bi abdu misal Mustafa Muhammadi Seexul Xadim nee na lam yabdu misal Mustafa Muhammadi lam yabdu misal Mustafa Muhammadi bàyyi ba sag baara maam yi dalak Cheikh ne lam yabdu misal Mustafa Muhammadi bàyyi ba sag baara nee na ku mel ni doomi Abdallah ja dootul amati sirran wa jaran fil baraaya dafa madi. mboolem bi ne fii li na bokk li feeñ koy ku mel ni moom dootul. gànnaar lana al islam wal kufra al mahaa. islam am na ndam kenn ko waral mooy rasulillah. wa bi nasihatin li kulli samaha. Cheikhul Khadim ne lu dul loolu damay borom moo ko. yaquudu bi zahiri wal baatini man. Cheikhul Khadim ne li na bokk li feeñ kii woo ma jaami kenn la. ataawu lillahi fi kulli zaman. bari Serigne Bassirou Bara bari Serigne Bassirou Bara ne. badwanil uyuba azabat Touba nee na Moustapha yow mii di sama soppe di sama taalibe kaay ma wax la nooy def ba génn badwanil uyuba azabat Sëriñ Touba nee na sama soppe bi tax ngeen sopp ma nii la defoon ba génn ca xidmatwanil uyuba azabat Cheikhul Khadim nee na yoo liggéeyal gi ma liggéeyal rasulillah dindi la sama yaye wal istiqamatan wa safan wa yaba Cheikhul Khadim nee na may na ma tey may na ma jub rasula ma ko may baana kawnul mustawa raisa Seexul Xadim nee na leer na ci man ni loomi Abdoulaye Diack Amina nekkee ca kaw li kulli man xat fudulu ruusa Seexul Xadim nee na yàlla teral rasulillahi te mooy borom teral فوق كل رقبة شيخ الخديم nee na bu ñu la laajee waxal ni nabi teg na tànkam ci kaw xulul moom min gustigaara xulla kulla man aba dox ma geneen góor mu ngi bëgg a guddi temps bi jot na damawa jamiul anbiya Seydi Aboubacar Si Bakar rek dara maan aram la ku ma jàm fa wadd far ma jóbbu gu ma penda patt penda xar yàlla bopp coor kan moo fi yaakaar Sëriñ Babacar Si Malick nee na xadma jamiul anbiya bàyyi Sëriñ Cheikh Tidiane Si Cheikh du tiit ba jóg daw Cheikh du mer ba tey di tijaan maktum du yox yoxe bàkk leen sa tumaw doo xaddamoo jamiul anbiyaa koo xamul ki may wax mooy maami Serigne Moustapha Sy Moustarchidina wal Moustarchidaate yaa Serigne Babacar Sy ay Moustapha Serigne Babacar Sy Malick min al basitin bay madiidin bay kaamilin bay rawalin xaddamoo jamiul anbiyaa boo xamul ki may wax mooy bàyyi Serigne Abdoul Aziz Al Amine mi ñuy jooy te noppeeku ñëw Serigne Babacar ay joobe rasulilah jamiul anbiya'i boo xamul ki may wax mooy bàyyi Serigne Mansour si borom dara yëg dërëm yi borom yi machine bi ne xaddamu jamiul anbiya'i maami Serigne Moustapha si Al Amine Serigne Babacar ay joobe rasulilah xaddamu jamiul anbiya'i borom bu ne kaara ba du ko wengal du ko jengal du ko sengal rangi-rangi jëm ci waawan toppal ci rangi baa nga noppi ci rangi-rangi du yàqu li saytu rangi borom rangi te defar rangi mooy borom rangi te defar rangi mooy Seydi Aboubacar Si ramalil waawi xaddamu jamiul anbiyaa Sëñ Babacar nee na kii la yàlla jéggal ci mboolem nu yàlla yónnee fi ridaaka latxiyaa yi cent vingt-quatre mille prophète trois cent treize waaju du seen morom sarirati mooy sekkara sekkara yi ñu tànn Quraysin yaru Quraysin moo dema ci la Yàlla tànn xiratullah eh, wa xiratullah eh, wa xiratullah eh, wa xiratullah wa xiratullah janu taalibe Cheikh wa xiratullah wa xiratullah juddu ci ginnaaw mbay gisuñu mbay xamuñu mbay mbay la ñu gëm wa xiiratullah xiiratullah yi xale yi soppay xale yépp Seydi Aboubacar Si ne wa xiiratullah wa xiiratullah mbokkum Sëriñ Fallu Mbàkke ba Sëriñ Babacar ne wa xiiratullah Rahmatullahi maa ngi ñaan ci darajay Moustapha 7TV yàlla na nekk ca kaw ca kanam ci barke Rasulillahi wa xiratullahi eh, kii mooy tànneefu yàlla bi sunu zaati safatullah stop guddi na yàlla na yàlla faj aajo yi Moustapha lu ñu fi indi ci ay aajo Moustapha wa haada ma haada lakin وصليا محمد يا حبيبي وجزيا علي عثمان في اللي حنا محمد اللي مالنا مختار في اللي وصليا يا إله وجليا أبدا أن محمدنا مختار في الخدم كوكيا وصليا ما سبق إلا يا حبيبي وجزيا خالد أصبح في وصلي يا محمد لا اله محمد وجزيا والله أبدا وواو أن محمدا المختار هذا ما هذا لكن لا يماثل من تواضع وخشوع القلب والرطم سراج مالك نه علي الصوفي وابتعي عامل لواء الطريقة التجانية في ديار السنغال مولانا الحاج مالك بن عثمان سراج مالك نه maami Serigne Maodo si. Mm-hmm. mi ci xam-xam beeg yar bi ci fii ci virage. Mm-hmm. xoolal Moustapha sànq bi ñuy ñëw dañu romb ñaar ñuy xeex comme kàbb dafa yéwén ñu romb ñuy xeex ci tali bi mu ne ma nañ wàcce àtte ma ne ko wàccal àtte comme sa temps may na la ko yow nga wàcce àtte. <laughs> mais wa ma aada lakin la yubaasara min tawaadui wa xutuuil qalbi wa ratabi Seydi Hadji Malick ne doomi Abdalaay jàkk Amina naaru soxna Xadijatu sayyiduna Muhammad Mustafa xam nga ni sa turandoo fi gën sa turandoo gën ku fi gën ki gën ka gën ka gën yéen ñëpp bu ngeen dajaloo di jaay gën na bee leen gën xam nga lu tax hmm. sa turandoo fekk nañu ko mu toog ñu tooñ ko nabi baale sa turandoo fekk nañ ko mu toog ñu ni dof la nabi baale sa turandoo fekk nañ ko mu toog ñu xaañ koy xeer nabi baale sa turandoo fekk nañ ko mu toog ñu boole kokki dof nabi baale sa turandoo boole nañ ko xale yi ñuy baale keroog ba deretam di tuuru yàlla ni toq toq deretu nabil mustafa bu waddee ci suuf man yàlla ma tukkal àdduna ak alaaxira sayyiduna muhammad ni benn jaam rek jaamu yàlla jarul loolu xam nga lu tax jaru ko mooy kat bu yàlla tukkalee àdduna am na ñoo xam ne ëllëg mënoon nañoo juddu gëmma waaye comme waroon nañoo juddu gëmma di dékk deret ji di ko naanaat ñu ne yaa rasulallahi waaye lu tax muy def lii mu ne eh, dama leen di xamal ni leen jullit war tërëy de la tatakabbar wala tatajabar innaka abdun lasta bi cheyin awaluka maaun axiruka turabun maa fi batnika illa rijisun xam nga la tatakabbar wala tatajabar innaka abdun mooy yonent yàlla muhammad ne Mustafa sa turandoon ne mbër lu am na fi bëccëg goo xam ni keroog sa rëy feeñul sa fit feeñul sa njàmbaar feeñul ndax ku la ko ëppale la yàlla roofuk njàmbaar mu ñëw fekk la fa boole la ak sa njàmbaar tëral suuf wallaay dëgg la yonent yàlla muhammad wa xaada maa xaada lakin laa yumaasalu min tawaaduin wa xushuuin qalbi wa rasami xoolal yonent bi daal boo bëggee dégg dëgg hmm. ku mel ni moom du am lakin laa yumaasalu min tawaaduin hmm. yonent bi nee na sayidul xaw mi xaadimum xam nga lu ko waral mooy bu ñëpp dajee ci tele bi yow nga nangoo doon mindaan mi yonent bi ne yaa fi gën bu ñëpp dajee ci kër gi nga dangoo doon mindaan mi rasul ne yaa gën bu ñëpp dajee ci koñ bi nga nangoo doon mindaan mi nabi ne yaa gën bu ñëpp dajee ci ko ci dëkk bi nga nangoo doon mindaan mi nabi ne yaa fi gën yonent yàlla muhammad nag ne lii ax a gën xam nga lan la du jud ko du askan ndax laa taqulu asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasal nit askan du tax ñu ne yaay gaynde ga ndax xam nga bu dee askan rek la ñuy topp kaña lan la mu safaa kaña lan la. kaña bàjjani kaña lan la. kaña tantay kaña lan la. kaña cousin wu kaña lan la. kaña cousine wu kaña lan la. kaña maami kaña lan la. kaña ko jabar jabaram lan la. waa kon kaña ku ko gën a rëy askan am na. yonent bi ne déedéet affaire bi du askan xam nga lan mooy affaire bi. Mm-hmm. ñu ni lan mooy affaire bi mu daan ni daal affaire bi lenn rek la waaw mooy doo wax askan laa taqul asli wa fasi abadan innama sul fata ma qad ahsan askan wi fi daal yaa koy sa bopp Moustapha kàddu gaa ngi noonu. kon wax dëgg yàlla doy na li ñu jox nii doy na sëkk si neen ma bàyyi la nga tàggatoo kàbbu ba yow laa jëkkee <laughs> tàggatoo yow laa bëgg nga tàggatoo. <laughs> non way la man manul wax. kon fa tabaarakallahu faaw bu gërëm ñu ko ñu ñu ñenn si ñoom. maa ngi nuyu mbokki téléspectateur yëpp fa tabaarakallahu di nuyu sëñ Mansour Gaye ni moo ñu fi indi. bu wér di nuyu Hadj mi nga xamante ni moom suñu waay la. di nuyu Siré Diallo ma fi àndal ak xaaj Baye Lay Samb di nuyu suñu sëriñ Tafsir Abdourahmane Gaye mi nga xamante ni lépp li ñu fi doon wàcce yëpp moom la di nuyu sama yaay soxna Ami Dieng di nuyu sama maman nag sama yaay sama xarit Adja Mariama Sow tabarakallah moom moo ma solal bi may ñëw macha allah ni ma demal ci Omar Waly tabarakallah mu jox la fa benn colin su ma jumali rafet na de ah. macha allah tabarakallah kon Adja Mariama Sow mu Cerno Sama Sow ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara tabarakallah di nuyu àdduna bi yëpp nag ñu dañoo mën wala wax. Hmm. tàgg yeneen bi rek lañ mën. jërëjëf kon ñu jox sama sëriñ. xaaj Mansour looy tàgg. waaw kontaan naa si yow de. damay wax samay waxi bopp comme wax na waxi boppam. <laughs> waaw te mën koo wax man nag damay wax samay waxi bopp mën naa wax nag waaye mënumaa way man itam. ayca kon nag ku ne doyuloo li nga am. su ko defee kon ñu sant la bu baax Moustapha sant it waa télé bi bu baax. gërëm leen ñaanal yàlla ñi fi liggéey yëpp li ñu yóbbu yàlla na ko yàlla barkeel waaye itam sant la ndax yow sa bëggoon nga ko bu yàgg jotaay bu ni mel chaque jour nga di ko bëgg ngir lan waa kër yonent bi lu bëgg rek nga ci mhm. jublu mhm. waaye boobaak tey tey la ko yàlla dogaloon fa tabaarakallaahu kon sant nañu la bu baax ñaanal la yàlla itam li nga fii liggéey yàlla na yàlla musal la ci accident làmmeñ accident làmmeñ mooy wax juum nit ñi exploité ko loolooy accident làmmiñ yàlla yàlla musal la ci la ca des nag mooy réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm waaye jàmm daal day lalu ci kaw dëgg mhm. bu dëgg amul jàmm du am waaye bu mhm. dëgg amee jàmm am ndax mhm. yonent bi dañu woon man daal maay dëgg waaye ki may dëggal mooy Seydi Aboubacar mooy Baye Babacar Saddiq waaye nag bu fekkente ni dëkk bi amul dëgg jàmm du am fa tabaarakallaahu yàlla na fi yàlla def dëgg def fi jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant yi fu ne la ñun ñu woowe fu ne lañ ñu messagé ngi message ñu ngi woote ñu ngi laaj ñu ngi apprécier ak sama benn xarit boo xamante ni tabaarakallaahu ñoo daan ànd jamono jamonoy xale mu ngi Mouhamadul Amin Thiam Thiam su ma juumul mu nga ba bël Belgique xaw ma léegi la ma message daa ma sëriñ bi maa ngi seetaan ma ne ko kon nag maa ngi bëgg a baax ndax ñoo daan ànd taw mhm. tuuti nga def ma naanite waaye man bi ma jógee ci naanite yi doon taalibi tabaarakallaahu bu ma bëggalal kon yàlla yàlla fay leen fay waa télé bi nuyu waa Serigne Muniru Jégel suñu kilifa googu nuyu Mouhamadul Moustapha Gaye suñu taaw waaye nuyu Serigne Maodo si mi nga xam ne mooy suñu taawu askan fa tabaarakallaahu waaye nuyu Tafsir Abdourahmane ndax waxtu wi tembe itam mu ngi seeva mu ngi seetaan émission bi mhm. ndax sànq rek mu ñuy message di laaj kañ ngeen di commencé kon booba mu ngi seetaan ñi fi jaar ñëpp nag doon tag yonent bi itam yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla sàmm leen ba ci Saddiq mi ci mujj waaye ñaanal itam ñi ci réseau bi ñaanal itam mboolem ñi liggéey ci télé bi yépp daal yàlla na ngeen fi gën ndax yéen a tàntal tey ki fi gën yàlla na yàlla defal leen li fi gën was axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Xaaji Mansour xam naa eh, kàbbu yaay tëj insha allah rabbi nga tëj rek lu gàtt ñu daal di tàggatoo ñu ngi jaajëfal Penda jigéen ñu mën góor la ndeysaan sama waay la sama xarit la taalibi borom daaru bi nekk si réseau bi booba ak léegi sak tabaski nag fii la koy fii la koy passé ak ñun <laughs> mm-hmm. borom daal di ko ñaanal moom it balaa déwén yàlla nga taajal muse nga xam ne doo ñëw fii nii si si kër gi ah <laughs> waaw ñu ngi lay siyaare bu baax a baax Penda di siyaare pap mi si son bi nga xam ni boobaak léegi son bu baax bi ngeen fi dégg rek moom la lépp lu baax rek waa Rési ñoo nekk sa ginnaaw ñun dañuy toog rek di wax waaye di jiital si si sant gi ki nga xam ne tey moo waral lii muy suñu PDG na Ndour fay ndax fecc lu si dee na yaa jàpp sa mbagg ya te moom su ko neexul woon defe naa ne lii ñu am lii nii ñuy def tamit du fi am Papis Mbaye ñu koy jaajëfal bu baax moom it sonn na si Modou Diouf ñoom ñëpp suñu limee dañuy juub Adama ñu ngi leen di saare bu baax suñu bàjjeen systémaria ñu ngi koy saare bu baax baax di saarewaat encore une fois kenn koo xam ne kenn la si ñun muy Mbaye Saliou dafa def geste bu rafet euh, Mansour nga ñaanal ko dama toog nii rek jékki-jékki mu ne maa lay solal sa spécial tabaski muy muy sama confrère di liggéey fii si Africa 7 dëkk ba Touba yére bii Touba la tegee si oto mu ñëw ñi koy siyaare bu baax mbay saadiw siyaare nañ la bu baax a baax ndax sama soxna da dem ma ku soxoru def lii mm-hmm. kon sant nañ la bu baax mbay saaliw di lay jaajëfal bu baax a baax a baax yaag njaboot gi nga nekkal foofu yëpp surtout baax di siyaare Babacar Thiam mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom it jàppale si liggéey bu baax samay sama doom bi ma am nga xam ni daanaka tout tànk la mm-hmm. Seydina moom moo ko ñawal te wax dëgg yàlla ñoom nañ koy ñawa rek man daanaka daal yonent bi xam naa ne daal mi ngi may fay bu baax a baax a baax siyaare naa leen bu baax di siyaare sama soxna di siyaare njaboot gi yëpp di leen jëf dugg di jaay xam naa ne li ngeen doon xaar yegsi na tous les vendredis lay doon à partir de 16 heures allah rabbi muy jotaayu werekaan yi këru kër diine yi ñoo ko moom nag incha allah rabbi xam naa dina neex te dina yëngu tous les vendredis lay doon de 16 heures jàpp 17 heures incha allah rabbi kàbb bismillah bëgg la soppee ñu tëj يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برض أقرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف كل الخلق قد وسعت من فاجر ومطيع زايد باري ورحمة الله كل الخلق قد وسعت من فاجر ومطيع زايد ليس من فما دعيت غفورا كل أوزار أوزاري كان بابك لا يكيد ذو إسم فما فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيصير أوطاري إني فقير أنا مسكين مسكين ومنكسر محتاج غيرك في أوطاري أزكى صلاة صلاة وتسليم وتسليم على قمر من نور نيل ما نلنا من أنوار أزكى صلاة صلاة وتسليم تسليم على قمر من نور من أنوارك من نوري ونيل ما من سبيلهم سلكوا ربي من أبرار